sëriñ Ababacar Diakhaté sëriñ Ababacar Diakhaté ñu gën koo xam ci sëriñ Mbay Diakhaté mi ngi gane àdduna ci atum 1873 ci dëkk bu ñuy wax Kër Makala nekkit ci wetu dëkk bii di Pekkees ci suuf si di Kayoor ci région de Thiès Ababacar Saddiq dib saxaabab yonent bi lañ ko duppee moom sëriñ Mbay Diakhaté doomu soxna Penda la ak baay xaali ma jaxate kala moom sëriñ baabakar jaxate ñu gën koo xam ci sëriñ mbay jaxate sëriñ Ababacar jaxate am na nag ñu mu bokkal kii di soxna penda faal ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna may jaxate soxna faati jaxate soxna mareema jaxate ak kii di soxna xari jaxate moom sëriñ mbay jaxate moo nekk nekkoon seen càmmiñ sëriñ mbay jaxate bi matee dal lii di alxuraanul karim waajuram di sëriñ xaalima jaxate kala moo ko jàngal lii di alxuraanul karim ginnaaw bi nag jox nañ ko magam bu ñuy wax sëriñ moor saasum jaxate mu jànge ci waajuram ak magam ba géeju lool ci wàllu alxuraan ak lii di xam-xam ginnaaw am njàngam nag ci dëkk boobu di kër ma kala la toog ci ginnaaw magam jooju ak waa waajurawam woowu ba ci atum 1883 bi seexul xaddim wootee lii di yoonu murit nag sëriñ Ababacar Jaxate tànxam lu ko ndax dem na wuy ji kon nag ma wax leen li indi sëriñ Ababacar Jaxate ci ëttub xaadimu rasuul ginnaaw bu waajuru sëriñ Ababacar Jaxate di sëriñ xaalima Jaxate kala ak waajuru seexul xaddim nekk nekkee ay wóllëre ba keroog sax bi maam Mor Anta Sali làqoo ci atum 1882 kii di Baye Xaalima Jaxate Kala bokk fekkoon na sax ca denc ba bi sëriñ Tuuba seexul xaddim wootee ci atum 1883 kii di sëriñ Ababacar Jaxate tànqam lu ko ñëw na wuy si comme nag ni ko ñépp defee waaye bi mu ñëwee nuyoonte ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddim ci Mbàkke Kajoor seexul xaddim laaj na ko Ababacar Jaxate ana nga bàyyi ko mu wax ko kër ma kala nekkit ci wetu dëkk bii di pekkees seexul xaddim laaj na ko ana bàyyi xaali ma jaxate kala ak sëriñ Ababacar Jaxate di ko xamal ne bàyyi xaali ma nga fa ginnaaw te beeg jàmmante bi seexul xaddim laaj na ko ana lu nekkoon say tànk kii di sëriñ baabakar Jaxate di ko xamal ne sa woote bi nga woote de laa fa yéenee ñëw bokk ci bi maanaam jaayante seexul xaddim wax ko ne dangay delluwaat foofu ci kër Makka la yor kii di bàyyi xaali ma jaxate kala ba noppi koo gis doog a ñëw nag jaayante ak man kon Babacar Jaxate jaayante na waaye dafa delluwaat nag ci ndigalul ku baax ki jéem a yori waajuróom wi ba noppi koo gis kon lii la ko seexul xaddim wax ci atum 1883 ci Mbàkke Kajoor sëriñ Ababacar Jaxate def ndigal li ko seexul xaddim sant muy dellu ci kër ma kala yori nag juróom wi di bàyyi xaali ma jaxate kala ginnaaw bi nag seexul xaddim wey nag di taxawal yoonu murit mag ñi di wuy ba ci atum ca fin ba wala 1884 ca début ba la fa jóge nag ñëwaat Mbàkke Bawol ngir sanc si dëkk bu sell bii di Daaru Salaam ginnaaw bu mu sancee dëkk bii di Daaru Salaam wéy na nag sancaat dëkk bu sell bii di Tuubaa juróom-ñaari at yu teg ay weer la fi def dem Mbàkke Baari Jolof def fa ay weer am fa takk-takk ak kii di maam Abduloo tubaab bi dugg ci ñu yóbbu ko ci réew mi di Gabon mu nekk fa ba atu 1902 ci atum 1900 nag la waajuru sëriñ Haba Bakar Jaxate mi génn àdduna di bàyyi xaali ma jaxate kala ñu denc ko sëriñ Haba Jaxate nag xam na seexul xaddiim neewoon na ko demal yori bàyyi xaali ma jaxate kala ba noppi koo gis te comme noppi na koo gis nag te bëgg na jaayanteeg ku baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddiim te seexul xaddiim ma nga ci réew mële di Gabon mu bind nag ab lettre fas yéene ca jébbulu ngir jaayanteeg baax ki sëriñ Tuuba seexul xaddiim waaye boobu booba ku baax ki mi ngi Gabon mu jóge fa nag ñëw ci maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di xaar nag ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddim ci atub maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru lettre bii sëriñ Ababacar Jaxate jaayante ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddim bi mu nekkee Gabon Cheikh Abdou Lahad Mbàkke moo ko jële ci loxoy njaboot gi mooy bi muy dajale mbindum ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddim ngir ñu yóbbu ko ci bi bi nekk daaray kaamil kon ku dem ci bibliothèque bi nekk daaray kaamil da nga gis leetar bi sëriñ mbay jaxate jaayante ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim fala nag sëriñ Ababacar jaxate des nag ci maam Ceerno Ibrahima Faati di xaar nag ko baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim mu ñibbisi ci tukki bi ci le 20 septembre 1902 la seexul xaddiim bàyyi ko nag ci réew moomu di Gabon fas yéene delsiwaat ci réew mii di Sénégal ci le 11 la wàcc ci ndakaaru ginnaaw bi dem na ndar Louga Paris Diamou Cissé sànnoosi jaar fi mu jaar ñaxal Mbàkke Kajoor ba ni mu ñëwee ci dëkk bu sell bii di Daaru Salaam ngir nag gane si maam Cheikh Anta Mbàkke muy rakkam bis bu delsi la Seexul Xaddim am Daaru Salaam ci diirub ay bis yooyu woolu na kii di maam Ceerno Ibrahima Faati ngir di ko xamal ne na ko indaaleel Ababacar Jaxate mii kon Daaru Salaam la Seexul Xaddim njëkk gise waate kii di Sëriñ Ababacar Jaxate jaxate mu jaayantewaat fa seexul xaddiim di ko wax ne lettre ba jot na ca kon booba la ko loon ak njébbalam seexul xaddiim nag dafa téye kii di sëriñ Ababacar jaxate ginnaaw bi ànd na ñëw daaru marnaan ngir gane si maam Thierno Ibrahima Faati def na fi ay weer ginnaaw weer yooyu nag la fi am takk-takk ak kii di mbaaxaan tubaab bi dugg ci ñu bu wat ko ci réew mii di gànnaar ginnaaw bu seexul xaddiim demee gànnaar ab diir wala lu tolloog at nag ci lay doog fekk si ko ci gànnaar ba mu fa demee sax wéyal na ko fa am njàngam boole ko ku ñuy wax sëriñ Mouhamadou Lamine Gaye mu di ko fa jàngalaat lii di xam-xam ginnaaw bi nag seexul xaddim boole na ko ci kuréel gi doon jàng alxuraanul karim ginnaaw gànnaar ci atum 1907 ca yéen jolof ca yéen jolof googu sax kii di sëriñ Ababacar Jaxate dem na fa nag ndax foofa nag la tarbiyoo maanaam li ñu tudde ak muritu ci sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ginnaaw ca yéen jolof Jurbel ci 1912 ci 1912 nag la jot lii di ngërëmam Seexul Xaddiim woo ko gërëm ko moom Ababacar Jaxate ginnaaw bu mu jotee ngërëm ci Seexul Xaddiim mu dem nag ci piir kër nijaayam sëriñ Amar Fall la fekki woon foofa sax lañ ko taxawalee lii di kër ci piir googu ci ëttub nijaayam ginnaaw bi nag la fa bàyyi ko ñëwaat nag ci wetu njaareem sañc fi dëkk bu ñuy wax fu jëkk dëkk bi nekkoon na fa di liggéey ak a baye di yar ak a tarbiya ndax bu leen fàtte ne ci mbindum alxuraan wala njàngum alxuraan ki la doon liggéeye la seexul xaddiim ba jot lii di ngërëm moom sëriñ Ababacar Jaxate waaye dëkk bi di fujeek dafa mujj gent ndax ginnaaw bu ko seexul xaddiim woowe ci 1916 ngir mu dem wéttali rakkam ja sëriñ Habibullahi Mbàkke ci xuru Mbàkke kon xuru Mbàkke moo tax dëkkub sëriñ Ababacar Jaxate bi di fuj mujje gent ndax ndigalul xuru mbàkke ak dëkkam bii nu koo boole ci atum 1916 nag la sëriñ tuba seexul xaddim woolu kii nag di sëriñ Ababacar Jaxate di ko xamal ne bu sañoon mu dem nekkal ko ci dëkk bi di xuru mbàkke ndax sëriñ Habibullahi mbàkke ibnu Mamor Anta Sali mbàkke ak kii di soxna jaaratullaahi di rakki ku baax ki sëriñ tuba seexul xaddim moo xamal sëriñ tuba seexul xaddim bi mu nekkee ci tukki bi di ko wax ne ning ma mujje jamono de de bu fekkoon ne man mii di abibullaahi maa la mujj jamono duma la bàyyi nga wéet foofu ci xuru mbàkke loolu sëriñ habibullaahi mbàkke moo feeñu seexul xaddim ci tukki bi wax ko ko loolee nag seexul xaddim bi mu ñibbisee ci tukki bi bàyyi na ci xel ci wax jooju ba ci atum 1916 mu jox taalibeem ba nag sëriñ Hababakar Jaxate di ko wax ne na dem ci xuru mbàkke wéttilil ko rakkam jooje di sëriñ habibullaahi mbàkke seexul xaddiim Xaadim di xamal sëriñ Ababacar Jaxate di ko wax ne soo demee ba ci dëkk bii di xuru Mbàkke njax ma nga fa soo demee nja nga laajte ku ñuy wax sëriñ Balla Faal xel moom keroog fekke na bi ñuy denc kii di sëriñ Habibullahi Mbàkke soo eggee nga laaj ko fan la barab bi toll bi sëriñ Ababacar Jaxate ñëwee dem ci dëkk bii di njax laajte ku ñuy wax sëriñ Balla Faal xel léer wax ko li ko Seexul Xaadim wax sëriñ Balla Faal keroog ci téeméeri at ak fukk la ko fekke mu ànd ak moom ba ca ron béb ga di ko wax ne ci béb gii de lañ denc sëriñ Habibullahi Mbàkke sëriñ Mbay Jaxate nag toppatoo barab ba sanc fa ca déwén sa di 1917 sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim bàyyikoo na njaareem doon jaale si nag kii di sëriñ Ababakar Jaxate ci waajuram wu génn àdduna di soxna Penda Faal di waajuru sëriñ Ababakar Jaxate boole koog nag di seet si waale sanc ba ak di ziyaare si rakkam ja sëriñ Habibullahi Mbàkke keroog ba ñuy ñëw kii di sëriñ Balla Coro Mbàkke di rakku sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo ñaan autorisation ba Cheikh Isaa Jenn di seexub sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim moo dawal oto ba leen indi ñoom ñett autorisation bi bi ko sëriñ Balla Coro ñaanee tubaab bi da ko xamal ne autorisation bi ne mën naa la ko jox waaye ci bisub alxemes bi bu 18h jotee na Seexul Xadiim delsiwaat njaareem lu ko mooy nag yow Balla Coro yow yow la amal ay wax keroog bi ñu egsee sëriñ tubaa seexul xaddim jullee na fa ñetti waxtu muy yoor yoor bi ñu egsee julli na fa jullig yoor yoor lii di tisbaar ak takkusaan fa la ko seexul xaddiim jullee bis biñ egsee xuru mbàkke nag mu ngi dëppoo bisub alxemes fukki fan ak ñaar ci weeru digg ci atum 1335 ci gàddaay gi alxemes fukki fan ak ñaar ci weeru digg ci atum 1335 ci gàddaay gi dëppoo muy jeudi 30 août 1917 jeudi 30 août 1917 la seexul xaddim yendu lii di xuru mbàkke bis boobu sax njabootu sëriñ Habaabakar Jaxate ñi ngi koy fàttaliku ci li ñu tudde ak màggal ci fukki fan ak ñaar yu ne ci weeru digg bisub keroog bi sëriñ Tuuba seexul xaddim egse ci xuru Mbàkke dem na ziyaara ji barabu sëriñ Habibullahi Mbàkke mii rakkam te waxoon ko ne su ma la mujjoon jamono de duma la bàyyi nga wéet poole koog nag seexul xaddim keroog ca bis ba la dem ba fi ñu def néeg soxna jaara bi ci xuru Mbàkke mu wax ne fii de moo nekkoon néeg soxna jaaratullaahi daat koy rëdd ca tànkul boppam ba lool sax moo waral ba mu fa jógee sëriñ Habaabakar Jaxate defoon fa néegum ñax bu fukki koñ ak ñaar ngir xàmmee bërëb rëbb kon ku dem xuru mbàkke bëgg a gis néeg soxna jaaratullaahi ba seexul xaddiñ ci tànkul boppam ba moo ko rëdd na fii la woon boole ci nag wax ne fii ñu denc sëriñ habibullaahi de wanagu soxna jaara la seexul xaddiim di wéy di wax sëriñ Ababacar jaxate di ko xamal ne habibullaahi mii de su màggoon wala mu dund man mii di wax ak yéen kenn duma xam ndax sëriñ habibullaahi mii de ku yéemale woon te lu ko jiitu soxna penda daana ko nettali na xaddim moo ko wax ne sëriñ Habibullahi mii de bu màggoon moom kenn du ko xam kon nag sëriñ Mbay Jaxate itam seexul xaddim nettali na ko loolu keroog ca ngan ga waxaat ko ko comme ni mu ko daa waxee waa juróomam wii di soxna Penda Faal cërub sëriñ Habibullahi mii itam seexul xaddim xam na ko ba tax mu fab sëriñ Mbay Jaxate ngir mu wéttali ko ci dëkk boobu di xuru Mbàkke boole kook nag fab fukki doomam ak benn ngir ñu ñëw wéttali seen waajur woowu di sëriñ Habibullahi Mbàkke seexul xaddim di teg keroog ca wax ja di wax ne dëkk dëkk bii di xuru mbàkke de ku fi ñëw mën nga mucc cib laaj bu ëllëgee yow mal ndax dëkk bii ka tey buñ ko doon adressé ci ab dëkk mën nañoo wax xuru mbàkke ndax fa amale lii di ak tuut tànkam moom seexul xaddiim bisub keroog ca jataay ba seexul xaddiim di ci teg ne dëkk boobu di xuru mbàkke képp ku suñ boroom nara laaj ëllëg doo teg tànk ci dëkk boobu di xuru mbàkke seexul xaddiim wéy di wax ak sëriñ Ababacar Jaxate di ko wax ne feede moo nekkoon keesug Maam Sali Mbàkke fi nekkoon keesug Maamoor Anta Sali Mbàkke sax fa lañ def jumaa ju mag ji nekk xuru Mbàkke teen boobu nekk ci xuru Mbàkke bisub keroog ca ngan nga la seexul xaddim waaxu ba fi mu nekk mu wax kii di sëriñ mbay jaxate di ko xamal ne gas leen fii ndox am na fi bu teen bi bënnee bu ci kenn naan na ngeen tànq ci ndox mi indil ma ko ci njaareem bi teen bi bënnee noonu ko seexul xaddim waxe woon ni la ko sëriñ Habaabakar jaxate mii defe muy tànq ca ndox njaareem keroog seexul xaddim jël na ndox ma fa toog moom diir bu yàgg daa di jëlaat ndox ma nag jox ko kii di sëriñ mbay jaxate di ko xamal ne su demee na ko sottiwaat ci biir teen ba te ndox mi nag nañ ko sàmm te war warmaal ko muy teen bi kon teen bi teenu barkeelu la tur wiñ koy wooye itim seexul xaddim moo ko joxe koro ca ngan ga wax ne nañ koy woowe bisri sikri di teenuk cant mu ngi foofu ci xuru mbàkke kon moom bisub keroog lii seexul xaddim wax seexul xaddim rëddoon na keroog ci ngan googu mu fi amoon di wax ni fii moo tolloo woon ak néeg soxna jaaratullaahi bi kon loolu moo waral sëriñ mbay jaxate xàmmee ko ba tax néeg soxna jaaratullaahi am foofu ci xuru mbàkke ndax doomam moo wax ni fii moo nekkoon néeg waa waajuram foofu it ci xuru mbàkke fi la soxna jaaratullaahi téewoon lii di sàkket wa taw te ba fajar mamor anta sali doog a xam ni lam ne woon soxna jaara téyeel ba nëga xuru mbàkke moom bërëbu ziyaar la kon lii moo waral sëriñ Ababacar Jaxate ñëw feeti xuru mbàkke ngir yeesalaat sañ cub xuru mbàkke ci diiru fanweeri at ak ñaar def na ko fa ndax ci atum 1916 ba 1948 génn ko dem fenn xanaa ñëw ziyaare si rek ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim ci bërëb bu sell boobu di kër gu mag ci njaareem waaye lu dul loolu sëriñ Hababacar Jaxate mi ngi ci xuru Mbàkke ndax foofu la ko Seexul Xadiim dëloon kii di sëriñ Hababacar Jaxate lu bare bare bari ci ndonal Seexul Xadiim yor na ko ndax dàll yi Seexul Xadiim doon sol ci tukki bi ci géej gi sëriñ Ababacar Jaxate la ko joxoon yëre itim joxoon na ko ci lu bare bare bari ndax keroog bi ñuy denc sëriñ Ababacar Jaxate moo xam mbind la mu ko seexul xaddiim bind juróom ñaari mbubb yu ko seexul xaddiim joxoon ak ay dàll lañ ko dencaale ci barabam kon moom ku seexul xaddiim bàyyi woon xel la ndax bu leen fàtte ne seexul xaddiim daana ko wax Ababacar Jaxate ñëwal ñaaxati ma kon nag ku seexul xaddiim bàyyi woon xel la ndax ku seexul xaddiim daa wax Ababacar Jaxate kaay ñaax ma kon ne kooku tuuti ginnaaw bu ko ku baax ki joxe ndigal mu dem wetti li rakkam jii di sëriñ Habibullahi sëriñ Hababakar Jaxate toog nag ci dëkk boobu di xuru mbàkke xuru mbàkke boobu wéetu fa ndax lu tollook fukki doomu seexul xaddim ak benn ña nga fa ak kii di rakku sëriñ Tuuba seexul xadim di sëriñ Habibullahi mbàkke fukki doomu seexul xadim ak benn ñi juróom benn ñu jigéen lañ ak juróom ñu góor ñi ngi foofu di wéttili sëriñ Hababakar Jaxate doom yeeg benn mooy ku ñuy wax sëriñ muhammadu abdullahi mbàkke doomu soxna faati tuuti mbàkke la ak kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim ku ñuy wax soxna aminatu mbàkke ma nga fa doomu soxna xari penda faal la ak sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ abdu jamin mbàkke ma nga fa doomu soxna xari penda faal la ak sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ abdu wahab mbàkke ma nga fa doomu soxna xari penda faal la ak sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna mu mbàkke ma nga fa doomu sëriñ tuuba seexul xaddiim la ak soxna xari penda ma nga fa soxna muxlisinatu mbàkke ma nga fa doomu soxna faati may jóob la ak kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna faati matu mbàkke ma nga fa doomu soxna njaxat silla la ak kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna salimatu mbàkke ma nga fa doomu soxna xaar jóob la ak kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim soxna maryamu mbàkke maneen ma nga fa doomu soxna may munatu jaxate la ak kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ abdu salaam mbàkke ma nga fa doomu soxna xujja jóob la ak kii di sëriñ tuuba seexul xaddiim sëriñ abdu baaxe mbàkke ma nga fa doomu soxna haysatu jaxate la ak kii di sëriñ Touba Seexul Xaddiim kon fukki doom ak benn yi ña nga fa te sëriñ Touba Seexul Xaddiim moo leen tëral foofu ci xuru Mbàkke ngir ñu wetti li rakkam jadd sëriñ Habibullahi Mbàkke te Seexul Xaddiim joxoon ndigal sëriñ Mbay Jaxate ngir mu toppatoo barabu jëmm yi kon xuru Mbàkke barabub ziyaar la te bu leen fàtte foofu itam fi la Seexul Xaddiim amale lii di ak tug tànkam ci dëkk boobu dëkk boobu itim foofu la soxna jaara téye sàkket wa kon xuru mbàkke dëkk la bu yéeme ndax dëkkub ziyaar la dëkk la itam bu am sémbul bu yaatu ci yoon wi di yoonu murit sëriñ Ababacar Jaxate bindkat nag la woon lépp loo xam ne nii rek doomu aadama soxla na ko wala mu koy jëfandikoo kii di sëriñ Ababacar Jaxate bind na ko moo xam jigéen juy sëy la moo xam lii di wàllu nawet la wàllu mbay natt asaka ñaar ñu xaritoo ab taalibe nu war a mel dëkk bu sel bii di Tuuba seexul xaddiim doomu seexul xaddiim yi ci gàttal daal sëriñ Ababacar Jaxate li mu bind takku na lool lu waaye xalaat rekk ca loola bind na ca ngir jagleel ko jullit yi rawatina muritu seexul xaddiim yi ndax moom bindkat la woon kii di sëriñ Ababacar Jaxate ñu gën koo xam ci sëriñ Mbay Jaxate doomu Baay Xaalima Jaxate kala ak soxna Penda bindkatu sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ba mi ngi génn àdduna ci dëkk boobu ko seexul xaddiim dëëloon di xuru mbàkke ci feebar bu ko tëral bisub àllarba juróom-ñetti fan ci weeru baraxlu ci atu 1367 ci gàddaay gi àllarba juróom-ñetti fan ci weeru baraxlu ci atu 1367 ci gàddaay gi dëppoo muy mercredi 16 juin 1948 mercredi 16 juin 1948 sëriñ Hababacar Jaxate moomu ci xuru mbàkke sax lañ ko denc ci teewaayu cheikh Mamadou dul Bachir Mbacke ibnu Serigne Touba Seexul Xaddim moo ko taxawu ñu denc ko ci xuru Mbacke ndax dëkk boobu fi la ko Seexul Xaddim dëloon ci atum 1916 Serigne Hababakar Jaxate ay xalifaam nag nii la tëddee ci atum 1948 ba atum 1974 ku ñuy wax ab du Jaxate moo ko wuutu ñaareelu xalifa Serigne Hababakar Jaxate mooy ku ñuy wax Serigne Moodu Jaxate ci atum 1974 ba 2004 ñetteel ñetteelu xalifa sëriñ Ababacar Jaxate mooy ku ñuy wax sëriñ Moustapha Jaxate moo fi toog 2004 ba nëgëni ñuy ñaanal sëriñ Moustapha Jaxate mi mu sut waajuram wa aw fan te taxawu liggéeyu waajuram wi te suñ borom sàmmal ñu ko te aaral ñu ko ba mu yàgg ci toogaayu sëriñ Ababacar Jaxate ci darajay bindkatu seexul xaddiim ba di waajuram sëriñ Ababacar Jaxate am na nag ay bis yu yuñ koy fàttaliku ci dëkkam boobu di Xuru Mbàkke benn bi mooy juróom-ñetti fan ci weeru baraxlu di bis bi nga xam ni ci la wuy ji woon suñu boroom ak njabootam ñu ngi ko koy fàttaliku rawatina ki toog toogaayam di sëriñ Moustapha Jaxate ñaareelu màggal gu ñuy fàttaliku kii di sëriñ Mbay Jaxate mooy bis bi ko sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim seet see woon ci xuru Mbàkke ci atum 1918 di fukki fan ñaar ci weeru digg bis boobu saa bu dikkaatee ñu fàttaliku ko foofu ci xuru Mbàkke ndax bëccëgu keroog fa la Seexul xaddiim yendu ànd ak cheikh isaa jenn ak sëriñ la Coro Mbàkke mi rakkam ci oto bu cheikh isaa jenn dawal ci autorisation bu sëriñ la Coro ñaan ak yeneen ak yeneeni bisi cant yuñ ko jagleel moom sëriñ Ababacar Jaxate mi ñuy ñaan ca liggéeykatu seexul xaddiim ba doomu jàmbaar ja sëriñ xaalima jaxate kala ka seexul xaddiim ne woon demal toog xuru mbàkke wettilil ma sama rakk ja te sàmmal ma sama njaboot gañ fa denc di sëriñ Habaabakar Jaxate ñu gën koo xam ci sëriñ bay Jaxate yàlla nañu ko yàlla fayal te taas ñu ci barkeem te yokk ay leeram fa mu tëdd ci darajey alxuraanul karim ak way yim doon way lii di ko baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xadiim ci barke yoo yépp itam yàlla na ci yàlla jaarale saafara metti metti réew mi amiin metti réew mi amiin metti réew mi amiin